interrogation alors euh, Ibrahima Pouy euh, euh, euh, tey gis nañu cette manifestation de de l'opposition bi Serigne bi Oumar fay jàpp ne une une société civile souvent absent au grand combat mais gis nañu ay combat yoo xam ne quand même la société civile a été au devant et porté na ko ci ay at yi nga xamante ne moom moo fi nekk effectivement xam nga bu ñuy wax le pouvoir wax opposition forcément il doit avoir un arbitre loolu société civile day mel ni arbitre la société civile warta jeng ci pouvoir warta jeng ci opposition au contraire buy jeng wala muy far farfarlu daa faro farak askan wi moo tuddee boppam société civile mm-hmm. et quand on considère que les politiques am nañ tour bu leen féetale quand on considère que l'armée wala institution am nañu ay tour mais askan wi ñooy les civils kon ñoom fa la ñu war a féete mais waruñoo jeng fenn mais quelle société civile lañ am léegi ban ban société civile société civile bi ñu am léegi bëri na ñoo xam ne dañuy porter ay combat wu opposition ah ñenn ñi dañoo féete ci opposition di woote société civile benn parti bi dafa féetewu ci pouvoir di fu woote société civile dañ dem ba benn moment sénégalais yi ñu ci bari amatuñu confiance ci société civile parce que boo waxta dañ laa naan ñoom ñëpp dañuy côtoyer les politiques tey buñ nee manifestation bu société civile organiser la Mais quand on voit que les images, on dirait que le dessus, les politiques dañ koo jël en main parce que ñoom rek la ñuy waxtaane et avant que ñuy ñëw ca manifestation bi fa Abdou ñu doon def déclaration parce que souvent peut-être les partis ñoom ñooy mobiliser parce que ñoom ay militants ami sympathisants fa laa oui moo tax ma ne a un problème avec la société civile sénégalaise parce que bu fekkee société civile dafa woote manifestation pour jooyal askan wi mais c'est les partis politiques qui convoque les militants à travers leurs leaders politiques à quelle société civile se fier gis nañ déclaration yi am yu bari ci ci ci ci réseaux sociaux yi ci presse en ligne bi pour inviter les gens pour ñu ñëw ci manifestation bi suñu alal dañ ko war a récupérer mais c'est des responsables de partis politiques ñoo ëpp ci liñ def ay déclaration politique donc tey bu ñu demee ba benn moment parti politique yi récupérer manifestation société civile warta bett Sénégalais yu bari ci li ma jàpp mais dans l'un ou dans l'autre li am solo mooy li taxoon tey ñoom ñu koy jooy di ko kaas ba tax ñu wata rassemblement dafa engagé l'ensemble des citoyens sénégalais que muy pouvoir que muy opposition que muy ki yeewoo ci kër nga xam nga lu tax bi Covid bi yegsee président de la république lancé appel ne képp kuy citoyen sénégalais maa ngi lay woo ci xeex bi ñu jëm nga dugal ci sa loxo Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides dafa génnee deux cent millions teg ci table bi non seulement tegulu ko boppam mais da ko tegal mboolem ko yeewoo ci réew mi ñu dem ba benn jamono sëñ Baye Sy Mansour génnee ñaqam xalif général des Tidiane xalif général des Layène xalif général des Niassène xalif général des Canaba maanaam mboolem kuy kilifa diini islaam génne nga sa ñaq teg jàng bi génne seen ñaq teg après nag maison de précision ga ñëw citoyen lambda yi ñëw entreprise yi ñëw mais li tax ma tudd foofu mooy boo dajalee koppar googu yëpp bu fekkee tey détournement am na ci comme ni ko société civile bi supposé comme ni ko opposition bi supposé bu dee détournement am na ci dama jàpp ne alalu sëñ Muntaxa lañ détourné alalu sëñ Bay Si Mansour lañ détourné alalu sëñ euh, Laayeen lañ détourné alalu jàng bi alalu citoyen lambda bi am cent franc joxe ko moom lañ détourné mais rapport cour des comptes bu génnee présomption d'innocence dafay am ci képp ku ñu épinglé dafa am benn article boo xam ne boo duggee ci rapport bi rapport bi parce que la plupart du temps ci ay kiiwam recommandation ay rapport bi ay recommandation lay joxe. Hmm. parce que dañ ne ci biir constitution bi nga xam ne moo validé rapport bi bu fekkee cour des comptes def nañ seen i diagnostic ak seen i investigation ba jeexal dañuy jël benn rapport jëbbal ko parlementaires yi. muy jël benn rapport. jébbal ko gouvernement bi jël benn rapport féetale ko presse bi pour ñu communiquer ko citoyens yi sénégalais yi xam lan moo xew ci rapport parce que alalu askan wi la mais la finalité de tous ces rapport ci loxo président de la république lay tegu ma am recommandation nga may ma rek ma lire tuuti rek recommandation bi nga xam ne moom moo joxe article 48 bi nga xam ne moo andi coow li dafa wax ne la cour demande garde des sceaux ministre de la justice d'affaires ouvrir une information judiciaire à l'endroit de monsieur Lamine Diallo, comptable sortant de l'établissement de santé de niveau 1 de Kaffrine pour défaut de production des pièces justificatives des dépenses financées par les fonds Covid d'un montant de 45 millions de francs CFA. benn laa jël exemple pour waxee recommandation bi parce que ministère de la santé moo ëmb lépp luy hôpital ak structure mais nag bu ñu fàtte structures sanitaires yi dañu ils sont indépendants hôpitaux yi Kaffrine hôpital la bu am directeur am comptable am ñoom ñooy gérer seen bopp seen bopp kon on n'a pas touché le ministère de la santé d'abord Hmm. première recommandation bi mooy. da nga naan ci point dama non dama dama laajte mais recommandation. Hmm. parce que le rapport quand même a épinglé le ministère de la santé jaarale ko ci fonds Covid 19. waaw s'il hmm. le ministère de la santé moo ëmb structure sanitaire yëpp. mais hôpitaux yi yoo xam ne dañu am gestion indépendante. j'ai de Kaffrine bi nga xam ne moom la ñu wax comptable bi génne na 45 millions te amul justificatif. recommandation 48 ci cour des comptes moo ko ne na génnee pièce justificatif yi justificatif yi laa la wax képp koo xamante ne tudd nañ la ci rapport yi président de la république son premier role mooy mu mandu ci d'abord mooy kiñ ci tudd nañ génne information judiciaire yóbbu leen ci yoon puisque présomption d'innocence am na suñu mun ne andi possibilité pièce justificative yi wane na ñoom teg nañ ko ci yoon xayrul buñ ko andiwul yoon def li nga xam ne moom moo war loolu mooy rôle président de la république ni nga xam ne moom lañ jënk lépp lu jëm ci wàllu rapportement ak finalité yi li nga waroon a leeral mooy waroon leeral mooy gestionnaire yooyu attention gestionnaire yooyu c'est le ministre des finances et du budget moom moo leen fay fal moo leen fay teg y' a pas une autre y' a même dire boo waxee ne parce que loolu sax moo indi problème bi amoon au niveau du ministère de l' industrie quand Moustapha Diop a contourné la loi pour dem moom indi gestionnaire am la cour lui a tu n'as pas compétence à la matière pour yow indi sa gestionnaire cest dire ki am ki am sañ-sañ bi c' est le ministre des finances ñoom ñooy nommé gestionnaire yooyu mais le ministre même le ministre ne peut pas le faire le ministre en tant que tel ne peut pas du tout le faire. dinañ ci dinañ pas la responsabilité ministre. Serigne Saliou pas parlé du gestionnaire nommé par le ministre des finances xaaral xaaral ma ñëw ma s'il te plaît dama hôpital bi. dafa am gestion indépendante j'ai pas parlé de la nomination xaaral ma ñëw mais ma ñëw pas avec le Covid aussi mais ma ñëw mu yeggale mais ma yeggale mais positif dama bëgg mais li ma wax mënoo góor dindi waaw mais gestion indépendante mooy lan boo dem boo demee hôpital Kaffrine ils ont leur propre gestion. waaw mais lii gestion Covid bi la. ça n'a rien à voir avec la gestion de l'hôpital mais qu'est-ce qu'on parle gestion Covid bi dafa c'est-à-dire c'est une gestion particulière. ça ne non. waaw mën nga ma may ma ñëw la gestion de l'hôpital c'est une gestion indépendante. Covid bi c'est une gestion particulière j'ai parlé des quarante cinq millions yi nga xam ne dañoo tudd comptable bi nga xam ne mooy hôpitalu Kaffrine te buñ koy tudd ci affaire Covid bi la maa ngi ci débat bi ji yow yaa bëgg a dugg yow yaa jàpp ne man néew ma ci débat bi je parle du Covid je parle du Covid tey on on touche les dages damay faral di wax naan bon sax toog ci benn plateau ma ne boo jàppee dages yu Sénégal yi jàpp sàcc yu bari donte les ordonnances ci ministre lay jógee mais tey un DAGE n'a pas l'obligation de faire tout ce que le ministre le demande. et les 17 ma ñëw xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw bu ma nekkee man le ministre Serigne Sall nekk su ma DAGE su ma ñëwee jox recommandation boo xam ne leer na ma ne dafa ma nar a dekk seen xaalis boo xam ne amul justificatif le DAGE peut refuser ça et il doit le refuser. moo tax dafa am ay rôles yoo xam ne c'est des rôles yoo xam ne c'est individuel. et personnel ça en bonne foi. sa diggante ak sa borom. am na loo xam ne boo ko defee leer na la ne sàcc la am loo xam ne boo ko defee yaa ngi koy liggéeyal askan wi. sàcc boobu nag moom la war a liggéeyal tey euh, d' accord alors euh, ministère de la justice bu ñu ko joxee rapport bi. Hmm. moom mooy xool ndax dafay euh, poursuivre. ñi nga xamante ne mooy les personnes impliquées dans ce rapport nga xam ne douze quand même responsables des ministères wala dafay euh, abandonné euh, du ko sant ki nga xamante ne moom mooy moom mooy parquet euh, aujourd'hui ni mbir yi demee nga xam ne le rapport a saisi le ministère de la santé est-ce que mën nañu am espoir que ne eh, ils vont aller jusqu'au bout pour ñu leeral askan wi Euh, c'est désolant ci jamono boo xamante ni si euh, la population sénégalaise waa Sénégal ñun ci suñu bopp dem nañ ba amatuñu espoir ci suñu suñu nguur que ni buñ leen bu ñu tuddee dara loo xamante ni si dafa jëm ci ñoom dañ ciy teg loxo parce que euh, olof dafay am lu muy wax naan weñ gaa nga dammee ca mbajaxaan nga njiitu réew bu mënee taxaw daal ni man maa jël sama conc teg ko ci dossier yi dafay mel ni danaan man maa fat sàcc et boo nee sa réew Euh, gouverna gouvernance vertueuse sobre et vertueuse nga ni yow yenn dossier yaa ci teg sa loxo tey jii ñu ni on a saisi ministre de la justice bi nga xamante ni si tey yaa ko tabb dañuy ci ñoo xam ni ci sa ci yow la ñu fare dañuy jàpp ni loola njeexital gi ñu ciy xaar duñu ko am parce que euh, li koy dëggal mooy boo xoolee le communique du gouvernement mm-hmm. ci à ce niveau de piage de nos ressources publique comment nak la ñu ko mën a jëlee taxaw ni dañ koy défendre ci ñoom ñi nga xamante ni si ñoom la rapport bi tudd ils n'ont pas produit véritablement les matières pour pour se défendre mm -hmm. c'est c'est et c'est dangereux kon nag doo jàpp ni tey bu yeggee ci ki nga xamante ni si mooy garde des Sceaux dara dina ca am waaye beneen aspect bi nga xamante ni si moom moo moom moo moom moo gën a doy mooy tey jii nii fi nga xamante ni fa la réew mi toll suñu ay magistrat def liggéey bu am solo wone ne tey lii am na mhm. lii am na lii am na et d'autres te ñoom bi ñu koy def ils étaient face à ces maanaam ñoom bi ñuy def euh, rapport bi dañu jàkkaarlook ñu yox yëf yi ñu ko doon gérer am na leneen loo xamante ni daf si fekk si ci biir euh, muy ñi nga xamante ni si ñoom ñooy dage yi nga xam ni ñoom rek la ñu bëgg a jël yëf yi sëf leen ko c'est ça qui est qui est tey bu ñu jëlee un ministre teg ko ministre bu ci nekk am na ci ministre yoo xam ne ñooy proposer d'âge bi ñuy liggéeyal ñu indil leen ko. Mhm. comment on peut dire que ni tey d'âge bi moom moo def loo xamante ni si ministre bi àndu ci mais loolu loolu bu ñu bu ko bu ñu ko jéem a brandir sax devant les sénégalais yàlla suturaal na nag tey jii nii président Macky Sall mu créer un gouvernement d'attaque ñu tegal leen euh, benn jëf boo xam ni ci lañ war a wone ni véritablement c'est un gouvernement d'attaque parce que président Macky Sall xàllal na loolu ñu naan ñay buy xàll mbabal doom jaata xàllal na mbabal tey jii ki nga xamante ni mooy Amadou Ba ci ni ko confier naa le dossier bi dafa pour pour mu def ci lim ci war a def même le président de la République Macky Sall xam na ni tey jii ni rapport bi nii ce n'est pas c'est une chose claire amul lu ñu ciy wax parce que moom le président Macky Sall il représente une institution et dafay instaurer di wax que ñu respecter les institutions et la Cour des comptes fait partie des institutions de ce pays et nous pensons que la les institutions de ce pays ne produisent pas de l'illégalité lépp lu ñu produire lu jaar ci yoon la képp koo xamante ni sii tey tudd nañ la ci da nga war a rendre compte mhm. et le ministre de la justice qui est réputé pour être un tailleur maintenant il doit montrer que ni véritablement ce qu'il avait transmis à ses étudiants li nga xamante ni si moom la mës di ne tey jii il représente ça en donnant euh, véritablement li nga xam ni moom lañ koy xaare muy jëb saisir le parquet que ñu def ci liñ ci war a def parce que nag le niveau est très élevé par rapport à, à ces menaces qu'on reçoit partout concernant les gens qui sont véritablement cités dans ces rapports. alors ci ci rapport boobu euh, dégg nañu lu ñu fi wax ci rôle société civile sànq ni naa maa ngi lay wax ne est que du euh, souvent euh, quand vous appelez à une manifestation ce sont les politiques qui mobilisent ñoom ñooy indi mbooloo des politiques yoo xamante ne dañuy def ay discours yoo xamante ci seen biir déjà jubóowuñu muy opposition boo xamante ne gis nañu élection législative. Euh, leader de l'opposition jàpp ne ñii ñooy candidats yi nga xam ne dañuy liggéey euh, pour le Sénégal les autres candidats euh, travaillent pour Macky en la personne de Ousmane Sonko aujourd'hui manifestation bi Pape Djibril Fall je reviens encore sur loolu humilié par des jeunes de Pastef ni ko ni ko ni ko Adama Fall waxee loolu est-ce que du souvent coloration politique bi am ci seen manifestation moo indi situation bi tey Euh, permets-moi de rectifier pour pas dire humilier parce que damay ñëwaat ci lu am solo loo xam ne Serigne Saliou wax léegi ku ñu dàq ba mu daw ñu ngóofaan la dugal la sa oto. Euh, pas ngóofaan mais ñu lëng la non ngóofaanuñu ko. ngóofaanuñu ko ngóofaanuñu ko. non ngóofaanuñu ko laa xamul mais euh, ñu lëng ko pour bañ xeer yi dal ko. loolu euh, peut-être yow mën nga ko bañ a jëlee humiliation mais keneen mën na ko jëlee humiliation ok euh, je termine sur li ma doon. allez bien sûr euh, kii sur ma lancée. dama bëgg euh, ñu xam ni Serigne Saliou l'a souligné Papa Djibril aujourd'hui est dans la scène politique mënuloo ne da ngay def politique te doo nangu. ñu lay yuuxu politicien bu nekk dañ lay yuuxu critique bien mais dañ lay critiquer je termine euh, je termine léegi comme dag ma posé question bàyyi bàyyi ma yeggale waa bàyyi ma yeggale rek après ñëw kii euh, wax naa la ci sama début kàddu ne la ne mënuñu rafetlu li fa am te duñ ko mës a rafetlu ça c'est une chose mise de côté Papa Djibril biñ koy bi ko sécurité di ko yóbbu ci otoom maa ngi